jëf ya sar ñaar bi mu ko waxee agripa ne pool jëlal kàddu gi noonu pool tàllal loxoom daldi lay ne buur agripa ma lay ci sa kanam tey ci lépp li ma yawut yi jiiñ xol bu sedd la ci man ndaxte xam nga bu baax aada yawut yi ak seeni werante yoon kon maa ngi lay ñaan nga déglu ma ak muñ ci lu jëm ci yawut yi xam nañu sama dund li dale ci sama ndaw mu ci sama biir xeet muy ci yérusalem xam nañu ma bu yàgg te mën nañoo seede su leen neexee ne daan naa dund ni pharisien te mooy tarixa bi gëna diis ci sunu diine li ma indi ci kuréelu àttekat yi nag mooy yaakaar ne yàlla dina amal li mu digoon sunuy maam dige boobo la fukki giir ak ñaar yu bànni Israyil di sàkku ngir jot ko ci jaamu yàlla ak cawarte guddi ak bëcëg yow buur yaakaar joojoo tax ñu may kalaame ñoom yawut yi lu tax seen xel dàq ne yàlla dina dekkal ñi de man sax ci sama bopp dafa woon naa ne war naa def lu bari ngir suufeel turu yeesum nasaret daan naa ko def ci yerusalem ba noppi ma jot sañsañ sañ ci saraxalekat yu mag ya ba tëj gaay yàlla yu bari rax ca dolli ku ñu masaana bëgg a rey ànd naa ci daan naa wër jàngoo jàngu di leen teg toskare te di leen jéem a weddiloo te sama mer daana tar ba ma di leen xañ ba ca dëkk yu sori ngir fitnaal leen noonu am bés may dem dëkku damaas yor sañ-sañ ak ndigalu saraxalekat yu mag ya ca njolloor buur bi gis naa ca yoon wa leer gu jóge asamaan ne ray ba raw leeru jant melex ba ëmb ma man ak ñi ma àndal ñu ne nëram ci suuf ma dégg baat bu ma wax ci làkku yawut ne sool sool lu tax nga di ma fitnaal ngay bëre ak man ni fas wuy woŋeetu ku koy jam dëggal metti na ci yow noonu ma tontu ko yaa di kan borom bi borom bi ne ma maa di yéesu mi ngay fitnaal waaye jógal taxaw lii moo tax ma feeñu la teg naa la yen nga di ma seedeel ci lépp li nga gis ci man ak li ma lay feeñu ji dinaa la musal ci bànni israyil ak ci ñi dul ci ñoom laa lay yebal ngir ubbi seeni bët nga jële leen ci lëndëm tàbbal leen ci leer gi nga nangoo leen ci sañ-sañu seytaane wañu leen ci yàlla ma baal leen seeni bakkaar te may leen cër ci biir sama gaa yi sel ci kaw ngëm kon nag buur agripa waruma li ma yàlla yen ci peeñu waaye li tàmbalee ci damaas teg ci dëkku yerusalem ak réewu yawut mépp ba agsi ci ñi dul yawut yëgal naa leen ñu tuub seeni bakkaar te wone ko ci yàlla bay jëf lu dëppook rëccu loolu nag moo waral yawut yi jàpp ma ca kër yàlla ga di ma fexe rey waaye ginnaaw yàllaa ngi may taxawu ba tey maa ngi taxaw fii di ko seedeel ci mag ak ndaw yokkuma dara ci li yonent yi ak musa xamle woon lu jiitu maanaam almasi bi dina dékku ay coono te mooy jëkk a dekki bay jolli leer ci bànni israyel ak ñi dul yawut bi muy laay yéen nii festus di ko gëdd ak baat bu kawe ne ko danga dof pool xanaa sa jàng mu réy mi dala xañ sago waaye Pool tontu ko Festus mu tedd mi dofuma waaye lu dëggu laay wax te ànd ak sago yëf yi leer na buur bi moo tax maa ngi koy wax ak kóolute wóor na ni dara ci lii may wax ump ko ndaxte lii amewul ci ruq yóbbur Agrippa ndax gëmuloo yonent yi xam naa bu wér ne gëm nga noonu Agrippa ne Pool xanaa yow ci diir bu gàtt bii rekk nga ma bëgg a ci gaayi kirist pool tontu ko muy tey muy ëllëg waxuma yow rek waaye it ñi may déglu tey ñépp na yàlla def ba ngeen fekk si ma ci li ma nekk lu mooy jëng yi ci kaw loolu buur bi di jóg boroom réew ma topp ci berenis tegu ca ak mbooloo ma mépp bi ñu génnee nag ñuy waxante ne nit ki deful dara lu jar dee mbaa kaso te agrippa ne festus mën nan ko yiwi bu dénkuloon mbiram sesaar